dal leen ak jàmm doy na waar lool lim bu takku la ñoom soxna yi nga xamante ni bii ñu ngi leen di fitnaal ak tuttànk yi nga xam ne ñu leen di sàkku fi si biir réew mi Vox Populi xëy di ko lim si diirub ñaari at yi mu ngi naan toll nañ si junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti jigéen ak ay ndaw yoo xam ne sàkku nañu leen ci diirub ñaari at rek mu ngi naan lu ko dalee si weerum janvier toll nañ si fukk ak ñeent soxna yoo xamante ni bi yegg nañu seen kaw ñaar si ñoom sax ñu mujj leen faat ginnaaw ab ëmb boo xam ne jëlee nañ ko ci mu ngi naan ñett si fukk ak ñeent yooyu ay mineur la ñu maanaam amaguñ sax atum sëy muy ay gone yoo xam ne ñu ngay wéy di leen fitnaal fii si biir réew mi yeneen i gone di ay donga daara seen i image war na biir réew mi yépp tax yéenekaay yu bëri xëy ko fësal seen xëru njëkk l'observateur la turbine vox populi les échos libération ñëpp xëy di wax si jéey ji nga xam ne moo am sa dëkk bi ñuy wax njeñ euh, sa région bu Louga daay dongo daara yoo xamante ni bii dañ leen a fekk ñu daal leen di kenn xam ne foofu lañ doon jàngee vox populi naan du ay ni bii moom lañ def seen tànk ngir ñu a dem loolee la wala fi duppee jéng nag bu ñu sukkandikoo sur l'observateur ginnaaw bi nga xamante ni bii waa gendarmerie bu kokki teg nañu loxo sëriñu daara bi nga xam ne moo ko def yooyu le donga nga xam ne seen i at mu ngi toll si juróom-ñett jàpp fukk moom Xaadim Gueye moom yi nekkoon sëriñ daara bi mu ngi naan yi la donga dañ doon daw lu bari moo waral mu jéng leen ngir ñu bañ a génn daara ji li loo xamante ni biit buñ sukkandikoo si Vox Populi déggoon na ci ak waajur ndonga yi waaye loolee du lay ndaxte jëf ji dafa ñàng lool balee se ko jàpp ne lii ñu naan yor ay jaam dëgg ñoo ko na doxalee loolee sëriñ daara bi def mu ngi naan nag dëgg la naam déggoon na ci ak waajuru yooyu lee donga moo waral ñoom ñëpp nag Vox Populi naan ñu sëriñu daara bi ki nga xam te ne bi moo di soudeur métallique bi nga xam ne moo defar yooyu lee jéng ak waajur ndongo yi nga xam ne toll nañ ci ñeent ñoom ñëpp gendarmerie teg na leen loxo les ko naan ndax sëriñu daara ba dina fa yàgg ndaxte am na ñoo xamante ne bii ñu ngay def pression ci gendarme yi ak ki nga xam ne moo di procureur bi ngir mu teggi loxo ci boobu lee sëriñu daara l'observateur naan ci altine gi sax bu moytuwut moom Khadim Gueye moomee nga xam ne ma nekkoon sëriñu daara bi dinañ ko yóbbu ci kanamu procureur muy jëf yoo xamante ne bii ñu bëri jàppoon nañu ne amutul ci biir daara am na si réewum Sénégal ay góor jigéen yoo xamante ni bii am nañu récépissé ak ñi ñuy wax lesbienne ONG Jamra moo ni xamle si biir enquête yéene kaay mu ngay tontu ki nga xam ne moo di ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye mi wax naan mës a jox benn récépissé ñi nga xamante ni bii ñoo di mbootaayu góor jigéen ñi Mame Makhtar Gueye di dëggal yooyu lay kàddu naan dëgg la naam Aly Ngouille Ndiaye mës joxe benn récépissé waaye nguuru Macky Sall si boppam joxe na lu toll si juróom-ñaari récépissé nguur ak Abdoulaye Wade joxe woon na lu toll si juróom-ñeenti récépissé muy fukk ak juróom-benn récépissé yoo xamante ni bii jamono ji jox nañ ko ay mbootaayu góor jigéen ak ay lesbiennes yoo xam ne ñu ngi biir réew mi te moonte de article 319 bu code pénal dafa aaye fii si biir réewum Sénégal jaxasoo goo xam te ni bii ñaan ñu bokk awra ñoo koy amal muy góor ak góor wala jigéen ak jigéen source a moom mu ngi del siwaat si mbirum ndox mi nga xam te ni bii daanaka nguur Sénégal aw na si tànki jox ko kuréel gi nga xam ne moo di siège mu ngi del siwaat nag si li waral dëgg nguur gi daal di wan ginnaaw ñi nga xam ni ñoo di waa SDE ndaxte ñoom jàpp nañu ne ñàkk a doy dëgg maanaam bañ a li nga xam ne moom la yéen kaay bi tuddee formance dëgg nag moo waraloon ñu indi ay coppandi si njëgu ndox mi nga xam ni moom lañ doon jox doomi Sénégal yi mu ñere ba futu waa SDE diggante 1996 ba 2011 ndox mi yokk na yokkin woo xamante ni bi nguur gi mënu ko comprendre tax mu bëgg a dakkal ab digganteem ak waa SDE diggante bi dakk dëgg nag moo di diggante parti démocratique sénégalais ak ki nga xamante ni bii moo di Omar saar mën na ñoo wax kay diggante Abdoulaye Wade ak Omar Sarr ndaxte buñ sukkandikoo si yéene kaay bi nga xam ne moo di le quotidien mu ngi naan Omar Sarr mu nga jéem a corriger ki nga xam ne moo di Abdoulaye Wade ci dàq gi nga xam ne dàq nañ ko ko si biir parti démocratique sénégalais mu ngi naan note bii nag amul benn njariñ te fenn moom kuréel gi mu jiite di alliance suqali soppi nag mu ngay ñaawlu bu baax a baax jàpp ne dafa am ñoo xamante ni bi ñoo làqatu ci ginnaaw di ay bokkat yoo xam ne si mu jàmbur la ñuy waxee des si wàllum politique ba léegi ak Sud Quotidien bi nga xam ne moom daanaka yegg na si élection présidentielle yu 2024 mu ngi naan ay stratégie ak ay calcul politique la ñu teg dëgg nag waajal élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal fësal si mu njëkk photo Idrissa Seck Karim Wade Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko ak président Macky Sall mu ngi naan 2024 lépp mën a nekk. mën naa nekk kenn si ñoom mu nekk joueur africain de l'année bu ñu sukkandikoo si le soleil yéene kaay mu ngi naan CAF Award 2019 bi nag ñetti doomi Sénégal fës nañu si Sadio Mané. Gana Gueye ak ki nga xamante ni bii moo di Kalidou bali ñoom xanaa kenn si ñoom dina jël ni ki ren li nga xam ni moo di Ballon d'Or bu réewu Afrique yi jërë ngeen jëf mbokk yi di daje ba ëllëg incha allah.